maa ngi lay xarit maître lan nga ñu mën wax ci xibaar bi ñu dégg ne am na ñenn ñu àndoon ak Ousmane sonk ñu am ñoo xam ne ci garde à vue la ñu nekkoon ñu levé ko waaye Ousmane Sonko dafay wéy di des euh, ci loxo takk der yi ndax dafa am mandat d'amener bu ñu ko war a yóbbu ci juge bi euh, lan nga ñu mën a wax ci xibaar boobu. waaw mooy li li nga wax rek je crois que ni nga ko waxee loolu la bon ñi nga xamante ne dañ leen téye woon ak moom mooy garde du corps yi ñoom dañuy dem. parce que garde à vue bi dañ ko levé mooy dossier trouble à l'ordre public bi ak participation à une manifestation interdite donc comme levé nañ ko ñoom dañuy dem mais xam nga Sonko li ko fa bàyyi mooy mandat d'amener bi juge d'instruction bi def mandat d'amener bu ñu la ko defee mooy képp ki nga xamante ni agent de la force publique la fu mu la fekk da lay téye présenté la au juge d'instruction donc loolu moo tax bi ñu ko présenté vendredi juge d'instruction bi renvoyé loolu dañuy wax rek retour parquet la rek fi mu nekk ni mën nañ ne retour de parquet la nekk mhm. mu delluwaat au niveau de la gendarmerie di xaar pour ñu représenter waat ko di au juge d'instruction demain matin mhm. donc il est toujours en dans une forme de détention parce que ko ba demee juge bi wax ndax da koy bàyyi wala da koy téye. d'accord mais maitre man li ma bëggoon xam mooy xam naa loolu di ñu si mën a gindi euh, naka ngay mën a nekkee garde à vue di jël mandat d'amener maanaam loolu naka la mën a demee. actuellement procureur de la république moo jaxase jaxase yëf yi parce que dossier la boo xam ne nit dafa demoon. moom moom bu ko bu ko demandé woon duñ ko ko yóbbul Ousmane Sonko comme mi ngi ci seenay loxo wala Sonko Ousmane dafa am loo xam ne nanguwu ci euh, nanguwul nanguwul comparaître wala lan moo am parce que am na mandat bu ñu doon wax comparution ak yooyu. waaw xam nga fi mu nekkoon. Mhm. nekkoon garde à vue ci lañ def mandat dama la yóbbu mandat mandat de comparution. Mhm. mandat de comparution mooy dafay ñëwal sa Mhm. mu ne leen man mënu leen mënuma ñëwal sama bopp parce que dama nekk en garde à vue ñu toftal ci mandat d'amener dama d'amener nekkatul da ngay ñëwal sa bopp mais dañ lay jël si par force mhm. donc ñaari procédure la nekk yoo xam dafa jaxasoo àndul mhm. te lépp euh, jaxasoo bi yëpp mu jógee mooy problème jàpp bi ko jàpp bi mooy dem di wóoy ji euh, juge d'instruction bi kon d' accord kon demee incha allah moom ak euh, le juge Samba Samba Sall moom moo moom moo décerné mandat d'amener bi kon ci moom lay lay dem. ci moom lay dem te Ousmane Sonko génnagul. il mhm. faut que mu dem ci juge d'instruction bi demee. d' bi wax ndax da koy bàyyi. ah d' accord d' accord c' kon mën nañu xaar par exemple mu am seen assistance mu bañ a mel comme ni nga xam ne noonu la noonu la demee woon la fois passée. waaw dina am parce que juge bi amul choix parce que dossier boobu viol ak menace de mort. Mm-hmm. donc crime la. Mm-hmm. crime bu amee avocat bu bu taxawul du kenn du ci def ci ah, def dara. d'accord loolu moo tax il est obligé de waxatu ko comme ah. loolu mënul alors comme yéen yéenay ay avocat am ay conseil am parce que aussi avocat mooy conseil ndax mën nañu njort ci yéen ngeen conseiller aussi euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ñu ko déggee ñëpp di ko wax apaisement dal mën a am ci réew mi ndax mën nañu xalaat ngeen conseiller ko loo xam ni mën na jóge ci moom ñëw ci yéen jëm ci askan wi ci lu indi dal ci biir réew mi. waaw loolu dinañ ci après dinañ ko apprécier après suñu biir parce que am na loo xam ne aussi mënu ma ko wax ci télé dañu xam ne dafa xaw a doy waar mm-hmm. dañuy liggéey en poule parce que mm-hmm. du man kese ne ñun dix avocats lañ mm-hmm. donc loolu yëpp boo ko gisee boo gisee ñu bañ ci wax lu bari parce que lépp lu ñuy wax rek dañu bëgg di ko coordonner d'accord parce que dañuy bañ wax loo xamante ne day yàq ok moo tax dañuy préféré bàyyi bu diisoo rek doo ko ci waxtaan d'accord maître man laaj bu mujj rek xam naa la mooy euh, garde à vue bi levé nañ ko mais est que mën nañu xam ndax toppeetuñ leen dara mooy ñi nga xam ni bàyyi nañu leen. déedéet déedéet. toppeetuñ leen dara. déedéet du benn du benn. ah du benn. bu ñu levé garde à vue. waaw. annulé annulé wul procédure bi. ah d'accord maanaam levé nañ ko rek. mais lox yoon ba tey mu ngi seen seen kaw. à tout moment yoon mën na ko reprendre. levé garde à vue mooy. délai mm-hmm. bi nga xamante ni defoon nañ ko jeex na. Mm-hmm. donc garde ah, du na ñibbi nañ. d' accord mais yoon mën na leen topp. d' accord à tout moment. comme comme procureur mënoon na demander ñu yokkaat garde à vue bi. wala dafa dafa passé 96 heures. déedéet bu passé 96 heures rek. d' accord voilà donc c' est bon merci beaucoup euh, jërëjëf maître Bamba Cissé ñu lay gërëm bu baax ci ànd bi nga. ci garde à vue la nekkoon ñu levé waaye Ousmane Sonko dafay wéy di des euh, ci loxo takk der yi ndax dafa am mandat d'amener bu ñu ko war a yóbbu ci juge bi euh, lan nga ñu mën a wax ci xibaar boobu. waaw mooy li li nga wax rek je crois que ni nga ko waxee loolu la bon ñi nga xamante ne dañ leen téyewoon ak moom mooy garde corps yi ñoom dañuy dem parce que garde à vue bi dañ ko levé mooy dossier trouble à l'ordre public bi ak participation à une manifestation interdite donc comme levé nañ ko ñoom dañuy dem mais xam nga Sonko li ko fa bàyyi mooy mandat d'amener bi juge d'instruction bi def mandat d'amener bu ñu la ko defee mooy képp ki nga xamante ni agent de la force publique la fu mu la fekk da lay téye mm-hmm. présenté la au juge d'instruction mm-hmm. donc loolu moo tax bi ñu ko présenté vendredi juge d'instruction bi renvoyé loolu la ñuy wax rek retour parquet la rek fi mu nekk ñu mën nañ ne retour de parke la nekk mm-hmm. mu delluwaat au niveau de la gendarmerie di xaar pour ñu représenté waat makan Mhm. donc il est toujours en dans une sorte de détention parce que gis na ko ba demee juge d'instruction bi wax ndax da koy bàyyi wala da koy téye. d'accord mais maître man li ma bëggoon xam mooy xam naa loolu di ñu ci mën a gindi euh, naka ngay mën a nekkee garde à vue di jël mandat d'amener maanaam loolu naka la mën a demee. waa procureur de la république moo jaxate jaxatee fii rek parce que dossier la boo xam ne nit dafa demoon. moom bu ko bu ko demandé woon bu ñu ko comme mi ngi ci seen loxo. wala Sonko Ousmane dafa am loo xam ne nanguwu ci euh, nanguwul nanguwul comparaître wala lan moo am parce que am na mandat bu ñu doon wax comparution ak yooyu. waaw xam nga fi mu nekkoon. Mhm. nekkoon garde à vue ci lañ def mandat dama la yóbbu mandat mandat de comparution. Mhm. mandat de comparution mooy dafay ñëwal sa bopp. Mhm. mu ne leen man mënu leen mënuma ñëwal sa bopp parce dama nekk en garde à vue ci mandat d'amener mandat d'amener nekkatul da ngay ñëw sa bopp mais dañ lay jël si par force. donc ñaari procédure la nekk yoo xam dafa jaxasoo àndul. Mhm. jaxasoo bi yëpp fu mu jógee mooy problème mu jàpp bi ko jàpp bi mooy dem di wóoy ji. Mhm. Euh, juge d'instruction bi. Mhm. kon d'accord kon demee incha moom ak euh, le juge Samba Samba Sall moom moo moom moo décerné mandat d'amener bi kon ci moom lay lay dem. ci moom lay dem te Ousmane Sonko génnagul. il faut mu dem ci juge d'instruction bi demee. usertion bi wax na ndax da koy bàyyi. ah d' accord d' accord c' est kon mën nañu xaar par exemple mu am seen assistance mu bañ a mel comme ni nga xam ni noonu la noonu la demee woon la fois passée. waaw dina am parce que juge bi amul choix parce que dossier boobu viol na ak menace de mort. Mhm. donc crime la. Mhm. crime bu amee avocat bu bu taxawul du kenn du ci def dara juge bi du ci mën ah, dara. d' loolu moo tax il est obligé de nous admettre demain. d' kenn ko comme ah. loolu mënul alors comme yéen yéenay ay avocat am ay conseiller parce que aussi avocat mooy conseil ndax mën nañu njoxti ci yéen ngeen conseiller aussi eh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ñu ko déggee ñëpp di ko wax apaisement dal mën a am ci réew mi ndax mën nañu xalaat ngeen conseiller ko loo xam ni mën na jóge ci moom ñëw ci yéen jëm ci askan wi ci lu indi dal ci biir réew mi. waaw loolu dinañ ci après dinañ ko apprécier après suñu biir parce que xam ne aussi mënu ma wax ci tamit dañu nekk ci contexte boo xam ne Mhm. te dañuy liggéey en poule. parce que du man kese ne ñun dix mhm. donc loolu yëpp boo boo gisee bañ ci wax lu bari parce que lépp lu ñuy wax rek dañu di ko coordonner. d'accord parce que dañuy bañ loo xamante ni day yàq. ok dañuy préférer bàyyi bu rek doo ko ci waxtaan. d'accord maître man laaj bu mujj rek xam naa ma la mooy euh, euh, garde à vue bi levé nañ ko mais est-ce que mën nañu xam ndax toppeetuñu leen dara ñi nga xam ni bàyyi nañu leen. déedéet déedéet. toppeetuñu leen dara déedéet du benn du benn. ah du benn. bu ñu levee garde à vue. waaw. annu annulé wul procédure bi. ah maanaam levé nañ ko rek mais lox yoon ba tey mu ngi seen seen kaw à tout moment yoon mën na ko reprendre levé garde à vue mooy mhm. délai bi nga xamante ni defoon nañ ko jeex na. Mhm. donc ah, garde du yi génn na ñibbi nañ. d' accord mais yoon mën na leen topp à tout moment. comme procureur mënoon na demander ñu yokkaat garde à vue bi. wala dafa dafa passé quatre vingt seize heures. déedéet bu passé 86 la. d'accord voilà merci beaucoup. Euh, jërëjëf maître Bamba Cissé ñu lay leeral rek kon ci garde à boobu ñu ne garde à moom dafa am ab diir boo xam si moom la war a téye su fekkente ne diir boobu nag dafa jeex ah dañaan dootu ñu la téye nag dañ leen bàyyi bàyyi nga dem waaye nag bu la yoon soxla waatee mën na laa woo kon ñoom seen mbir jeexagul ci caméraman bi ak garde corps sonk ak Ousmane Sonko sa garde à bu jeexee. mën nañ laa bàyyi nga dem wala ñu déféré la nga dem même bu ñu la bàyyi nga ñibbi sa kër it bu la yoon soxlawaatee di lay jëli indiwaat la yooyu pour ma leeral ko ci garda bi bu ñu yëkkati coow li jeexagul de.